لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله وفي أوائل السفر سنة إحدى عشر للهجرية للهجرة خرج عليه الصلاة والسلام إلى أهد فصلى على الشهداء كمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرضتكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض أو مفاتح الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها متفق عليه بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi suñu yonent alayhi salaatu wasalaam bi mu ajee aj gu mujj dajale na mbooloo mi ànd ak ñoom daal di dellu ca dëkk bu sell boobu ñu naan almadinatul munawwar ci weer woo xam ne ñu ngi koy woowee weeru safar atum fukk ak benneel ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yonent bi génn na ginnaaw ba mu ajee aj gu mujj ba ñibbisi ci weer woowu ñuy wax weeru safar moom yonent alayhi salaatu wasalaam génn na di ziyaare ji bàmmeelu uhud comme ku leen di tàggu comme kuy tàggu ñuy dund bi mu jógee Uhud ginnaaw ba mu ziyaaree bàmmeel yi ba pare ñëw na daal di yëg ci min baram ci madinatul munawwar daal di fay xutba xutba bu rëy bokk na ci xutba bu lam wax sahaaba yi man de dinaa leen jiitu ndax maa leen di seede ëllëg yowmal qiyaam ci kanamu yàlla fii may wax ak yéen maa ngi mel ne ku jàkkaarloo dex gi ma yàlla dencal maa ngi leen di yëgal ni maa ngi nii jàkkaarloog moom maa ngi leen di yëgal ne yàlla de subhanahu wa taala jox na may caabi magasin ndàmbay suuf waaye day man de ragaluma ci yéen ngeen bokkaale sama ginnaaw li ma ragal mooy yàlla ubbil leen àdduna ngeen xëccoo ko sama ginnaaw loolu laa ragal ci yéen bi xutba boobu jeexee wa xaraja layla maa xulaamihi abi muwayhib génn na ànd ak benn xaleem bu muy faral di àndal jëm baqi ziare na bàmmeel uhud tey mu dem di ziare ji bàmmeel yi nga xam ne mooy baqi fa la ñu suul njabootam ak saxaaba yi ba mu eggee ci bàmmeel yi jéggul na néew yi ñaanal leen yàlla nuyu na leen nuyoo bi ñuy nuyoo bàmmeel asalaamu aleykum ya ahlal maqabir nuyu na leen ne leen jàmm yàlla na nekk ci yéen yéen waa bàmmeel yi lan moo xew ci yéen wala moo wax leen lu fi xew seen ginnaaw maa ngi leen di yëgal ne seen ginnaaw day aqbalal fitan ka qitaa'i laylil muslim yattabiu axiruha awaluha al axiru char min al ula seen ginnaaw day li fi xew mooy fitna boo xam ne dafa lëndëm ba mel ne daggitu guddi bu dem rek beneen ñëw bu dem rek beneen ñëw ci ay musiba mu ne bu mujj ñëw moom mooy gën a bon bi gën a dem al axir charrun min al ula loolu boo ko jàngatee bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan leen musiba bu dem beneen ñëw ba fii nu toll musiba bu dem rek beneen bu ko gën a bon mooy ñëw ginnaawam waaye ba mu nuyoo bàmmeel yi ba pare ba nuyu ñi tëdd ci bàmmeel yi ñaanal leen wax na leen wa inna bikum laahiquun maa ngi nii di ñëw léegi ñu ñëw fekk si leen kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ajee aj gu mujj ba pare da doon tàggatoo bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy ziyaare ji bàmmeel yi uhud ak baqi mbokk yi wa fi yowmin min al isnayni wa fi yowmi al isnayni benn bis ci bisu altine min ayaami safar sahri safar ci weer woowu ñu waxoon di weeru safar moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekke ji na ku faatu ku ñuy roob ku génn àdduna ñu koy denc moom yonent bi mu daal di génn ànd ak néew bi ba ñu denc ko mu daal di delsi bi muy ñëw ci yoon bi tàngaay beeg coono bi daal di koy jàpp mu jële ci bopp buy métti mu ñëw ci biir kër gi muy dugg si rek mu dégg yaay ay sanaan waara asaa way sama bopp bi yonent bi ne ko bal waara asaa man kay la sama bopp di métti yaay ay sa ne ko waara asaa way sama bopp mu ne ko bal waara asaa man mii Aïcha la sama bopp di metti waaw yow Aïcha xanaa du la neex wa ma darrak law mitta qabli fa gasaltuk wa kafantuk wa sallaytu alayk wa dafantuk Aïcha xanaa du la neex nga njëkk maa faatu soo faatoo yow Aïcha ma sang la ma sàng la ma jullee la ma suul la loolu du la neex fa qaala lakinni bika wallah man kay bu ma sañoon yow nga njëkk maa dee ah yow dangaa bëgg ma dee boo defee li nga def ba pare nag nga takk keneen nag indi dugal sama néeg su ngeen fiiraange jigéen waaye yonentu mu ngi ko doon wax pour wàññi pression bi nga xam ne moom moo ko nar a dal parce que xam na ne yonent bi dafay tàggu yonent bi mu ngi ci wàccaay di tàggat moo tax mu wax loolu Aïcha pour mu fàtte ñaari mettit yi bosam ak bosu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu waxee loolu fa tabassama rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di ree wa saqala bi rasul sallallahu alayhi wa sallam al marad feebar bi gën a monte nag gën a yéeg fa jaala yasal azwaja waaye feebar bi li muy gën a métti di yéeg yépp ar rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi laaj soxna yi ayna ana gadan waaw man suba fan laa aye ayna ana gadan suba fan laa aye buñ ko waxee fi mu aye dañuy woo ñaari nit ñu jàppoo ko tànk yi di direeku bopp bi wàcc ba ñu indi ko ci néeg bi mu aye ñu daal di ko fay tëral ba ñu xam ne yonent bi sonn na ci loolu fa azina lahu an yakuna haysu saa ñu ne ko yonent ñun daal li nu bëgg léegi mooy nekkal fu la neex nekkal fu la neex ci néegu soxna yi moom moo gën ñu lay diri comme da nga feebar ndeysaan ñu daal di koy indi néegu Aïcha comme moo gën a nekk sox moo gën a nekk xale ci soxna yi moo ko gën a mën a toppatoo ndax moo dese doole yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëdd néegu Aïcha léeg-léeg yaram bi tàng bopp bi metti yaay Aïcha alayhi radiyallahu anha daal di jàng qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin naas ayatul kursi daal di koy tëf li ci loxo yonent bi yonent bi daal di daal di jël loxoom yi raayal ko boppam Aïcha mënoon na jàng Qur'an bi tëf li ko ci loxoom moom sayyidatuna Aïcha waaye dafa jàpp ne loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ëpp barke loolu moo tax bi mu jàngee alquran bi ci gémmiñam mu tëfli ko ci loxo yonent daal di yëkkati loxo yi pour yonent bi raayal ko boppam ci yaramam mbokk yi waaye day ba fii yowmil arbia ci bisub àllarba mbir mi gën a metti ñu dafa ne day wàcc mu gën a metti yaram bi gën a tàng ba moom yonent mu naan sotti leen ci sama kaw ndox keroog sahaaba yi sotti nañ ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam juróom ñaari baagi ndox ndax yaram di sedd tàngaay bi aboubacar daal di romb ay sahaaba yuy waxtaan di jooy mu ne leen lu ngeen di jooy ñu ne ko dañoo gëj a gis yonent bi aboubacar daal dem dugg néegu yonent bi wax ko ko ni ko gars yi day nee nañ gëj nañ laa gis ñu ngi toog sax ci keppaaru jàkka ji jooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di génn ndeysaan benn mbagg gi ali moo ko téye beneen mbagg bi fadl tànk yaa ngay direeku bopp baa ngay lang xatta jalasa alal minbar ba mu toog ci minbar xataba naas mu daal di xutba ci kaw nit ñi li mu leen njëkk a wax laanatullahi ala alyahud wa nasara ittaxasu qubura anbiyaihim masajid wa qaala la tattaxisu qabri wasanan yubad yonent bi nee na yal na yàlla soril yahuud yi ak nasaraan yi yërmande lu ko waral mu ne dañoo jàpp seeni bàmmeelu yonent def ko ay jàkka di ko ziyaare di raay bàmmeel yi di dem seen kanam mu ne sama bàmmeel bu leen ko jàpp def ko feet di ko wër di jooy di yuuxu di di ko raay sama bàmmeel bu ko kenn def noonu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci minbar boo mu toog mu ne man kuntu jallattu lahu zahran fa haza zahri ay waay ku ma tooñoon ci yéen na ñëw fayu ku ma jëloon alalam na ñëw jël sama alal ku ma saaga woon na ñëw fayu benn saabu tudd ukaas ne ko man de gaañoon nga ma damay fayu ne ko kañ laa la gaañoon mu ne ko bisu badr keroog ba ngay ranger sappe yi pour ñu xeex xare yaa ngi yoroon benn bant di ranger sappe bi keroog day bant boobu jam nga ko ci sama biir bi te métit lool nga ma comme yaa wax nit ñi nañ ñëw fayu nag man damay fayu jàkka ji daal di yuuxu jooy yi daal di jib imaam ali daal di tëb taxaw ci kanamam ne ko booy fayu ci man ngay fayu waaye doo fayu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi daal ne ali puusal sama digganteeg ukaasa parce que maa ko gaañoon yow gaañoo ko ci man la war a fay yonent bi ne indil leen ma bant bi ma yoroon bi su badr ñu dem su muy def kaanam yi ñu indi bant bi ñu daal di koy ukaasa mu daal di wàcc génn ci biir jàkk ji fekk yonent bi ca minbar ba yonent bi ne ko fan laa la gaañoon mu ne ko ci biir nga ma jamoon yonent bi ne sama biir a ngi nii mu ne déedéet du ci kaw yére bi kay ci der bi nga ma jamoon yonent bi daal di yëkkati mbalaan mi mu làmboo daal di koy aj ndeke ukaasa te lu mu bëggoon mooy yaramam ak yaramu yonent bi daal di laalante bi yonent bi ajee mbalaan bi rek mu sànni yat bi daal di jël kanamam daal di koy diri ci biiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kanamu yonent bi daal di ne ko yonent bi li ma bëggoon mooy sama yaram laal sa yaram loolu dong laa bëggoon summa nazala fa salla zuhra yonent bi wàcc na bis boobu daal di julli tisbaar summa jalasa ala al minbar fa qaala inna li fa qaala rajulun inna li indaka salaasa darahim yonent bi julli na tisbaar wàcc minbar bi toog ci suuf kenn ci saaba kenn ci góor ñi ne ko yonent yoroloon nga ma ñetti dërëm de mu ne fadlu jox ko yonent bi dénkaane na ndénkaane gu mujj ma ngay dénk waa ansaar uusikum bil ansaari maa ngi leen di dénk waa ansaar bi ma nit ñi weddee ñoo ma toppoon bi ma nit ñi xañee ñoo ma joxoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ngay dénkaane ndénkaane gu mujj nee na ibna inna abdan xayarahu llahu an yatiyahi an yatiyahu min zahrati dunia ma shaa wa bayna ma indahu faxtaara ma indahu benn jaama ngi nii bugg leen wax moom la waaye moom la mu ngay tàggatoo benn jaama ngi nii yàlla tànn loo na ko rafetaayu àdduna ak li ci biiram mu tànn ko waaye moom jaam boobu de tànn na la nekk fa yàlla fa qaala abu saidin alxudri fa baka abu bakrin abu bakar jooy jooy yu metti ne ko fadaynaaka bi abaina wa ummahatina yow yonent jënd nañ la sunuy ndey ak sunuy baay nit ñi daan ne waaw abu bakar yow lan moo la dal yonent alayhi salaatu wasalaam wax wax ji rek yow nga jooy abu said nee na fa ajib naa lahu ñun ñëpp waaru nañ keroog ci góor gu màgget gii lu mu wax ndeke moom dafa dégg waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi day tàggatoo summa qaala rasul inna amina annaas alayya fi suhbati wa maalihi abu bakrin walaw kuntu muttaxisan xalilan lattaxastu aba bakrin xalila walakin uxwatu lislaami wa mawadda laa yabqiyanna fi lmasjidi baab illa sudda illa baabi abi bakr muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su ma doon am xarit nee na abu bakar mi mooy nekk sama xarit waaye man yonent aw ma xarit ñëpp samay mbokk lañ ni ngeen yëg ne keroog bunt yëpp tëj nañ leen ba mu des buntu abu bakar waaw su ma doon tànn àndandoo abu bakar lay tànn su ma doon tànn xarit Aboubacar lay tànn waaye man yonent aw ma droit tànn jullit yépp samay mbokk lañ loolu àllarba la woon bisu alxamis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ci minbar bi daal di dénkaane daan ne nañ génne yahud ak nasaraan ak bokkaalekat yi jaziratil arab bi ixraajil yahud wan nasara wal mushrikin min jaziratil arab yonent bi ne maa ngi leen di dénk wallahi yonent moo xamoon yahud yi nañ leen génne jaziratul arab ñoom nasaraan yeeg mushrikuun yi bokkaalekat yi lu tax balaa diine ji di taq balaa diine ji di lëndëm comme tey diine ji lu mu lëndëmee kenn xamul bokkaalekat yi kenn xàmmewul yahuudi yeeg nasaraan yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feebar bi gën a métti moo daan jiite ñëwatul moo daan jiite mbooleem julli yi jamii salawaat waaye gisatuñ ko keroog ci alxamis boobu mu daal di génn jiite nit ñi bi mu mujjee jiite jàng na suratul mursalaat ci géej feebar bi gën a yokk ba mujj gi mënatul a génn qaalat il aïcha radiallahu anha moom yonent bi bi mu xamee xam gu mujj mu ximmili ko mu ne asalla naas ndax nit ñi julli nañ fa qaala ya la ya aïcha aïcha ne ko déedéet julli wuñ de qul naa la ya rasulallah wahum yantazirunaka julli wuñ de ñu ngi lay xaar mu ne defal leen ma ndox ñu defal ko ndox mu jàpp bëgg a génn daal di xëm mu xëmmili ko mu ne ndax nit ñi julli nañ ñu ne ko julleeguñ yow la ñuy xaar ne defalaat leen ma ndox sallallahu alayhi wa sallam ñu defalaat ko ndox mu xamaat ba mu nekk ñetti yoon mu ne murru abubakar fal yusalli binnaas wax leen abubakar na jiite nit ñi yaay Aysa ne ko Aboubacar mun laa jiite de ndax bu taxawee sa place fi nga doon taxaw kenn dootul dégg de kon nañ wax Umar na jiite yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne Aysa yéen daal yéen ay mbokk Yuusuf ya yéen jigéen ñi yéen ay mbokk Yuusuf ya ñu dëgër bopp ngeen lu ñu leen wax rek ngeen teg ci baat wax leen Aboubacrin na jiite nit ñi Aboubacar daal di jiite mbokk yi ca bisu samedi ba wa fi yowmi sabt awil ahad génn nañ alxamis ba àllarba ak alxamis ba ajjuma bisu samedi wala dimanche yenent bi alayhi salaatu wasalaam yëg na ak oyof ci yaramam mu daal di génn diggante ñaari nit mu ne wax leen aboubacar na jiite ndeysaan fi aboubacar di jiite rek saxaaba yi yëguñu lu dul sàppe yi di xotteeku ña ngay indi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ci diggante ñaari nit tànk yaa ngay direeku ba baa ngay lang ba mu tolloog Aboubacar fi mu nekk ci kanamu sàppe bi Aboubacar bëgg a deltu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy joxoñ baaraamam ne ko an atimu salaa mottalil julli gi yonent bi kàbbar Aboubacar kabbar aboubacar di xool ci yonent bi sahaaba yi di xool ci aboubacar aboubacar bañ na jiite yonent bi alayhi salaatu wasalaam day bàyyi ba yonent bi kabbar mu kabbar su yonent bi rukoowee mu rukoo ci fi mu toog di julli ci dimanche ga mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam goreel na jaam bi mu yoroon saraxe alal ji mu dese woon mu nekk juróom-ñaari dërëm mu daal di jël ngànnaayam teg bagage am yi mu yore woon yépp mu ñu denc ko ca bisu altine ba ca julli fajar bettu leen rek lu dul rido yonent bi alayhi salaatu wasalaam muri nañ ko yonent baa ngi ci biir néeg bi gaa yaa ngi ci julli jàkka ji di julli fajar ñu yëg rido yonent bi alayhi salaatu wasalaam muri nañ ko parce que jàkka ji ak néeg bee dendoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yër jàkka ji gis gaa yaa ngi sàppe كسف ستار حجر عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة yonent bi xool leen ñu ngi sàppe comme moom bi muy wër nekk ci kanamu jàkka ji niñ doon sàppe mu ngi ci sukuraat mi ngi feebar mi ngi sonn mu daal di muuñ summa tabassama wa daxika mu muuñ lu tax ndax gis na mbir yi kat moom bu demee sax am na kum fi bàyyi kooku dina gérer ginnaawam ndeysaan anas nee na wa hamma almuslimuna an yaftatinu fi salatihim farhan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam keroog jullit ñi tuuti ñu am fitna bi yonent bi yëkk bi ñu yëkkatee rido yonent bi yonent bi xool leen jàkkaarloog ñoom kanam ngaa ngi leer ba mel ne weer wu toll ci badr anas nee na maa raayna manzaran kaana ajaba ilayna hiina nazara ilayna rasul ka anna wajhu samsin musriqa mbokk julit yi lu waral li yëpp mooy yonent bi moo leen di tàggu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi muñ na innaha albasma al axir allati lan yaraha sahbahu wa ahbabuhu baadaha fi dunya keroog xool boobu yonent bi xool leen nekk ci kawlal ci sukuraat mu xool sahaaba yi sàppe ci julli fajar googu keroog la sahaaba yi gëj a gis kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog la jullit yi gëj a gis kanamu yonent bi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان كراج ينتبه عليه الصلاة والسلام وولنا فاطمة فاطمة يكسي مداري كويدة فاطمة ري جوي ñu ko dee fatima jooy mu daal di koy woowaat daal di koy dee fatima daal di ree bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne àddina sahaaba yi daal di wër fatima ñu ne ko gis nañu keroog sa papa bi mu nekkee ci sukuraat mu woo la dénk la nga jooy mu woowaat dénk la nga ree mu ne waaw bi ma woowee woogu jëkk gi dénk ma dafa ne ma feebar bi du ci wér day génn àdduna daf ma doon tàggu te man moom rek laa am moo tax ma jooy ñu ne ko woowaat na la dénk la nga ree mu ne daf maa wax ne bu faatoo maa koy njëkk a fekki ma kontaan wa da al xasan wal xusayn fi mu tëdd moom yenent bi woo na xusayn ak xasan fa qabbalahuma mu foon leen wa awsa bihima xayran mu daal leen di dénkaane woona soxnaami wadaa azwaaju wa waazahunna wa zakarahunna mu woo soxna yi dénk leen waar leen feebar bi gën a yokk yaay Aysa nee na musumaa gis mettitu dee ci kenn comme ni ma ko gisee mu metti ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yonent bi dénkaane na keroog fa aw sannaas mu dénk nit ñi dénkaane bu mujj mu naan assalaa wa ma malakat aymaanukum assalaa wa ma malakat aymaanukum julli ak seen loxo ndeyjoor lum moom maa ngi leen di dénk julli ak seen loxo ndeyjoor lum moom ba mu waxee loolu ba pare nag moom yonente alayhi salaatu wasalaam wax yooyu mooy wax yu mujj yu leer yu nit ñi mën a nettali ci mu wax assalaa wa ma malakat aymaanukum ba kenn déggatul gémmiñ gi yaay aysa nee na bokk na ci xéewal yi ma yàlla defal inna min ni'mallaahi alayya bokk na ci man aïcha xéewal yi ma yàlla defal rasul sallallahu alayhi wa sallam tuufiya fii bayti yonent bi ci sama biir néeg la gaañoo te génne àdduna wa fii yawmi ci sama ay la génne àdduna wa bayna sihri ci sama kaw tànk la génne àdduna ci sama biir néeg la génne àdduna mu ne wa anna allaha jamaa bayna riiqi wa riiqahu inda mawti bi muy génne àdduna tuflitam ak sama tuflit yàlla jaxase na ko parce que man maa ko yéeyal socc bi mujjee socc radiallahu anha wa ardaha loolu nu mu demee mooy abdourahman ibnu aboubacar moo dugg mu ngi yoroon ci loxo bi soccu araak yonent bi mënatul wax mu xool Aïcha xool Abdourahman yaay Aïcha ne ko xanaa socc bi nga soxla mu daal di yëngal bopp bi yaay Aïcha jël socc bi yëy ko ba mokk daa di koy sexal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bombal ko ko ndey joor ak càmmoñ comme ni mu ko doon defee sukuraat bi gën a metti yaram bi gën a tàng bopp bi gën a metti yonent bi naan laa ilaha illa allah inna lil mawti sakaraat seel ni ñeel na yàlla dee daal am na méttit allahu akbar dee am na méttit léeg-léeg mu ne sotti leen ma ndox fatima nekk ci wetam naan waa karba abata woy papa sonn nga yeneen bi naan ko laa karba bi abik baadal yowm ginnaaw tey dootuma sonnati mu naan waa karba abata woy bàyyi sonn nga yonent bi naan ko laa karba bi abik baadal yawm ba yonent bi pare ci socc bi la ñu gis mu yëkkati baaraamu joxoñam bi mu daal di yëkkati bët yi xool kaw asamaan ñu dégg tuñ ñi di yëngatu ñu dégg muy dee Aïcha naan ko ma alladina an'ama allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى يننت بي دغ نان موي دي عائشه نانكو يالا داي موم ماي بولك يوننت يا مع الذين انعم الله عليهم min annabiyin ñi yàlla defal xéewal yonent ya ak ñi dëgguña ak shahid yi ak nit ñu baax ñi yow yàlla yal nag ma jéggal yow yàlla yal nag ma yërëm yow yàlla yal nag ma boole nag ma yëkkati yóbbu ma ci pay yu sell ya summa maalat yadu loxo bi daal di wàcc loxo yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wàcc walahiqa bi rafiil ala yonent bi daa di jëm ca pay yu sell ya daa di fekk boroomam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maata shafiqu rahim ki gën a lewet ci nit ñi gën a ñewent ci nit ñi moo génn àdduna maata shafiqu rahim bi ummatihi xeet wi ki leen gën a yërëm moo génn àdduna tey maata samsul xayaat ki doon leeral dund bi moo génn àdduna ki doon leeral dund bi jant bi nekk jant bi bëccëg nekk weer wi guddi maata daaiya nasiix woote kat bi gën a mën a woote gën a mën a laaye biir xeet bi moo génn àdduna maata saahibul qalbi alkabir allazi wasia almuminina walkafirin borom xol bu yaatu bi xol bi nga xam ne boole na jullit ak yéeféer yëpp denc kooko génn àdduna tey wal birr wal faajir ki am yërmande ci kàccoor yeeg ñu baax ñi wa saxiir wal kabir ki boole yërmande ndaw yi ak mag ñi kooko génn àdduna maata man kaana lil aytaami aban ki nekkoon bàyyi jirim yi moo génn àdduna tey wal masaakiin ki nekkoon baayu miskin yi moo génn àdduna wa man laazul awaasin ki nekkoon laqatukaay bi maatal imaamul mujahidin ki jiite woon jihaadkat yi moo génn àdduna tey maata nabiyul umma yenent xeer wi wa qudwatil xalq ki nekkoon royukaayu mbindeef yi maata xayrul bashar ki gën a baax ci mbindee fii moo génn àdduna wa abba wa ahabba alxalqa ila allah ki yàlla gën a bëgg ci mbindee fii moo génn àdduna ndeysaan bi xabaar bi tasaaroo anas nee na ibnu malik maa raaytu yowman kaana ahsan wala adwa min yowmin daxala alayna fi rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wa maata yowman kaana aqbax wa azlam min yowmi maata fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anas ibnu malik nee na gisuma bis bu gën a leer bi gën a neex keroog ba yonent bi bàyyi koo màkk dugg Medine gisuma gis bis bu gën a leer boobu keroog la Medina lépp leer waaye gisuma gis bu gën a bon gën a metti gën a lëndëm keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àdduna ca biir màkk nee na xel yi daal di jaxasoo lépp lëndëm Umar gàddu jaaseem daan ne yonent bi faatuwul dafa dem wuy ji boroomam comme na Muusa wuy ji woon boroomam Abubakar nekk fa woon dafa aye woon ca këram gu ndaw ga mu ñibbisi mu dégg coow li mu daal di waaxu dugg ci jàkka ji dugg ci néegu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu fekk ñu ngi ko sang burdoom ba mantoom ba mu muri kanam gi gis jëbi di tàkk di leer nañ mu daal di koy fóon ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah la hawla wala quwwata illa billah abubakar foon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jëm ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah wallahi giñ naa ci màggaayu yàlla yàlla du la masal dee ñaari yoon mu daal di génn moom abubakar mu fekk ñépp jaaxle mu ne leen wa ma muhammadun illa rasul xanaa xamu leen yonent bi nekkuloon lu dul ndaw afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum ndax bu faatoo rek da ngeen di dellu ca ceddo gi ngeen nekkoon wa man yanqalib ala aqibayhi falan yaduru llaha shay képp ku delluwaat ci ceddo doo lor yàlla dara man kaana yaabudu muhammad fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yaabudu llah fa inna allah hayyun la yamut ku daan jaamu yàlla day na yëg ne yàllaa ngi fi du fi jógee ku daan jaamu muhammad nag na yëg ne muhammad faatu na tey omar daal di sànni jaas ji daal di foon abubakar ne ko yaakaaroon naa ne aaya bi amul munumaa woon gëm ne aaya alquran wàcc na ci yonent bi naan wa ma muhammadun illa rasul ñu daal di jël yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci néegu Aïcha boobu daal di koy teg ci lalu yaay Aïcha bañ ko bëggee simmi ne dañ koy sang ñu dégg benn xa- baat di xaacu seen kaw naa ne yonent bi kenn du ko simmi ci waa këram yi ñoo koy sang Abbas Ali Uqayl Fadl ñoo sang yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yére yi mu génnee àdduna biñ ko sangee ba pare ñu ne dañ koy jullee allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala moo ko njëkk a jullee kan moo ci tegu jibril alayhi salaam sahaaba yi doog a ñëw di ko jullee kenn par kenn kenn par kenn ba jullee gi pare ñu daal di wàqi pax ca néegu Aïcha allahu akbar Fatima bu mu gisee ñuy wàqi pax bi mu ne anas kayfa taabat anfusakum أن تهسوا على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب naka ngeen di jëlee yaramu yonent bi di ci sotti suuf anas ne ko fatima li nga gis mooy sunnanu yàlla ci kaw suuf wallahi law arada abuk an najala lahu alfiras ala sama wal ard la la jaalnaahu sa papa bu bëggoon bi muy dund mu dénkaane ne bu ma deewee suul leen ma benn piliyaanu or ci kaw asamaan danañ ko def waaye lii nga gis tey mooy sunanu yàlla ku dee rek foog ñu gas ba mu xóot daat lay suul minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra yàlla nee na bi ngeen di dund suuf laa tiboon bind bind leen bu ngeen faatoo ma dénk leen suuf su ngeen di dekk yowmal xiyaam ma wax suuf na leen génne suuf génne leen loolu moo tax Fatima bi nga bi sa papa génne àdduna nga gis ñu gas suuf si daal di koy dugal Fatima daal di yuuxu daan ne yaa abata ajaaba rabban daa ya abata jannatul firdausi mawa ya abata ila jibrili nan'ahu woy sama baay wuy ji na boroomam bi ko bindoon woy sama baay aljanna firdaus teeru na ko woy sama baay maa ngi koy tàgge jibril fatima yuuxu daanu ci suuf gaa yi jàpp ko قالت سب علي مسائب لو أنها سب على الأيام سرن لياليا ماذا على من سمى تربة أحمد أن لا يسم مدى الزمان غواليا Fatima ne leen tey musiba bi wàcc sama kaw wallahi buñ ko sotti woon ci guddi mu nekk bëccëg suñ ko sotti woon ci bëccëg mu nekk guddi ndax du lu ndaw xayru xalqillah muhammad sallallahu alayhi wa sallam génne noonu àdduna bàyyi noonu xeet wi dénkaane ndénkaane gu mujj ne assalaa wa ma malakat aymaanukum julli ak seen loxo ndeyjoor lum moom ñuy sàggane julli allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhamar rahimin اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا واعتدلوا يرحمكم الله wala leen sàppe yi ngeen fàtt diggante yi allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر allahu akbar allahu akbar الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله